auzu billahi sami ali mina rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafahu xawli merci monsieur le président monsieur le ministre des finance et du budget monsieur le ministre du travail monsieur le ministre de l'éducation maa ngi leen di nuyu ak say collaborateurs ma ci ràññee kenn muy euh, Sidi muy doomu Médina tey nag sama intervention dama koy tënk ci ñaari point bu njëkk bi sur l'enseignement coranique deuxième bi sur l'enseignement en particulier monsieur le ministre ma bëggoon xam ndax budget bi ñu lay nattal ndax ñooñ daara yi dinañ ci gis seen bopp su ma nee ñooñ daara yi nag mooy ñi nga xamante ne mooy sëriñ daara yi ak euh, xale yi nga xamante ne moom lañ leen di jàngal ndax defe naa ne suñu waxtaan dina dina mën a am solo ndax am na suñu benn euh, collègue bu yéeg fii léegi wax na yow doomu daara nga te ku ne xam na ne yàlla yontu bi sallallahu alayhi wasallam la ñu reyloo ndax laxat kaana la lakum fi rasulillahi xuswatul xasana li man kaana yarjullaaha wal yawmil axiri wa zakarallaaha kasira kon nag kooku bu fekkente ne yàlla daf ñu ne nañ ko roy te moom mu ne xayrukum manta allamal quran wa ma allamahu ki gën ci yéen mooy kii jàng tey jàngale kon defe naa ne te yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax yàlla moo ko wax loo ndax wa maa yantiqu anil hawa in wa illaa wahyun yuuhaa kon nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu nee gën ci yéen mooy ki gën ci yéen mooy ki ki jàng tey jàngale kon defe naa ne war nañu jël jàngum alquran bi Euh, tenu ci en considération sëriñ daara yi ñu jox leen seen cër di leen defal ay bulletin de salaire comme ni ñu koy defalee professeurs yeeg ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax ci àdduna bi lañ bokk te euh, xale yooyu ñuy jàngal ëllëg ñoom ñooy doon ay imaam ñoom ñooy takk sëy yi ñoom ñooy ñooy ñooy tudd suñu doom yi bu miraas jotee tam ñoom ñoo ñu koy defal donc bu ñu sàgganee ba njàng boobu sooxee bu ëllëgee kon àdduna bi dafay yàqu te lim ñuy mën a jural musiba lay doon te yàlla nañ ci yàlla musal euh, leneen li ma ci waxaat mooy Euh, sama deuxième point bi maa ngi koy euh, maa ngi koy kii ci école yi parce que ñun dañu dëkk Médina mais Médina amuñu lycée léegi nag waa Médina dañ ma ne woon ne boo gisee monsieur le ministre de éducation nationale xamal ka ne ko ñun bëgg nañu école nañu bëgg nañu lycée nañu jàppale ci loolu pour ñu mën ko am ak euh, waa Gueule Tapée aussi Elyé Codou Ndoye école Elyé Codou Ndoye tamit nee nañ bëgg nañ tamit ñu réfectionné waatal leen seen école di wax rek ne yàlla waxul nañ jàng alxuraan denc ko suñu dënn yi daf ñu ne nañ li ñu nekk suñu dënn yi nañ ko nañ nañ ko nañ nañ ko nañ ko génnee kon nag ñi nga xamante ne ñooy jàngal xale yi nañ leen jàppale bu baax a baax a baax ndax wala xat yasarnal qur'aana li zikr faxal mi mu dakkir kon nag sama wax foofu laa koy tëjee wasalaatu wasalaamu ala rasulillah jërëjëf merci cher collègue la parole à